bàyyi leen xel fii ñetti lu yàq ci dëkk ñoom ñetti ñoo ko yàq man waxuma ko Seydina Muhammad moo ko ñetti lu yàqu ci àddina bi ñoom ñoo ko yàq mag mu dul wax dëgg mag boo xam ne fenn rek karabaane wor wuruj dëkk bu mu nekk dina ko yàq ndax da ngay foog ne mag la du wax giraawaali fekk bu waxee toj toj la mooy féewale mooy fenqale mag mu dul wax dëgg dëkk bu mu nekk dëkk ba du neex ñaareel bi mooy xale bu dul liggéey te bugg a tedd dana sàcc bu nit ñi tëddee yaa ngi ci wudd béy yi yaa ngi ci nguunu ganaar yi yaa ngi ci gétt ba yaa ngi buddi ay bant sàkka di ko toj di ko def matt di ko jaay xale bu bugg te liggéey dëkk bu mu nekk kenn du ko yar ganaar kenn du ko yar béy kenn du ko yar yar bool bu fanaan ci ëtt mu jàpp yóbbu xale bu dul liggéey dëkk bu nekk dëkk bu du am sécurité ñetteel mooy jigéen bu nangul sëy te bëgg lu mu romam yi sol mu sol ko guur bu ko moytuwul sa nguur yàqu sëriñ bu ko moytuwul sa sëriñ yàqu borom alal bu ko moytuwul nga mujj di yalwaan mag bu ko moytuwul da mujj kenn dootu la faale yal na yàlla ci ñetti mag bu dul wax dëgg ci dëkk xale bu dul nangoo liggéey jigéen bu dul nangoo sëy yonent yàlla Muhammad moo taxoon ci juróom-ñetti atam